ainsi que la sagesse et le savoir s'y ajoutent. Moi, je dirais c'est un don de Dieu. D'autres diraient c'est un génie. Il est né un 5 juin dans le département de Canel, plus particulièrement dans la région de Matam. ki may wax tey mën naa ne waajuram ju góor moom département boobu bokk na ci premier commerçant à ñu fa gën a ñu nee grossiste waajuram ju góor jooju su ñu nee cimetière yi ak jumaa yi ku ko tabax ñu ne waajuram ju góor moo ko tabax ki may dalal tey nee naa leen dafa am maîtrise ci école coranique ginnaaw école coranique boobu ci lycée Blaise Diagne la defee étude secondaire am bi mu amee atu ñaar fukki at ak ñaar la génn senegal dem sàkku ji xam-xam waaye nee na ca Gabon laa jëm foofu la ko chance bi ubbee ci séjouram boobu yàlla xamale ko ki fa nekkoon ma di Omar Bongo mu bok ci ay homme de confiance tam ki may dalal tay neena len leen génie la suñu nee afra science mythique du Coran daf ko jang am ci xam-xam ku ko jangal muy cierno Jibi Li xam ko ci dekk bobu ñuy wax Agnam Godo ki may dalal tay neena len lepp lu jëm ci pharmacie pharmacopée daf ko jang ci biiru juroom ñetti yalla may ko ci xam-xam mu gone ko ci diggante Bénin Gabon Mauritanie ba ci Sénégal kooku tey yàlla defal na ko xam-xam ba turam wër àdduna yépp képp ku jaaxle jaar nga ci moom ki may dalal tey nee naa leen du kenn ku dul le docteur Abdoulaye Diallo am mbégte ak bànneex jàkkaarloog moom ndaxte am nay kàddu yoo xamante ni askan gi soxla nañ ko te nee naa leen su askan gi soxla ñu tàllal suñu micro waxtaan ak yow kon du def dara lu dul ko bàyyi ko mu nuyoog les téléspectateurs de Leral TV. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, euh, monsieur Tange maa ngi lay nuyu di nuyu waa Leral TV di nuyu téléspectateurs Leral TV yëpp. di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi di nuyu ñi ma àndal aussi merci. kon yaakaar naa ni suma invité di docteur Abdoulaye Diallo ni ma leen ko waxee. Moi, maîtrise un ci science mystique du Coran ba pare Jang pharmacopée lu toll si juróom-ñetti at moom la ñu dalal Tay Tay, docteur suñu bëggoon xam kan moy docteur Abdoulaye Diallo soo ñu doon défal résumé sa parcours lan nga ñuy wax. docteur c'est vous qui le dites hein bon moi je xëccuma sama bopp le nom ou bien attribut de docteur fajkat dong la peut-être bu dee mais fajkat moy docteur waaw mais mën na nekk médecin mën na nekk euh, infirmier mën na nekk leneen. waaw mais garab bi su yéegee docteur lañ lay wax. c'est vous qui le dites parce que. d'accord nous l'acceptons. Sénégal mooy réew boo xamante ne euh, nit ñi théorie la ñu jàng jànguñu pratique ñu am faiblesse devant les blancs bu ñu demee jàng seen as tuut loolu nga xamante ne amul benn njëriñ sax euh, bu ñu leen ne docteur wala ñu am seen diplôme ñu accaparé ko nañ ko jël waaye xam naa ne man suis docteur docteur yi man weesu docteur sax. amaana ah, yow yaay docteuru docteur yi. maanaam da nga romb doctorat maanaam docteur yi fi nekk yëpp yaay seen docteur. man xeeb naa docteur. je suis au-delà de docteur. tu es au-delà de docteur. au-delà parce que docteur au moins bu dee docteur yi may gis fii. amul kenn ku ci mokkal alxuraan ah. d'accord amul kenn ku ci jàng asrar aussi hein. d'accord <laughs> donc leur connaissance est limitée. d'accord donc euh, <laughs> man je les vois même à mes chevilles waaw. Je les vois à mes chevilles Bok. tu les vois. à mes chevilles. me suuf ah. sauve la ligue. ah d'accord, c'est ça cheville quoi. Mm. D'accord. Madame maanaam docteur yi fii seen xam-xam c'est limité. yow docteuru docteur ou docteur sa xam-xam c'est c'est illimité. C'est illimité fan nga teg ah, parce que xam nga wax nga ko ci introduction bi dafa am dons. don. Mm-hmm. don dafa am. Tu mm-hmm. nga être le plus grand conseil du monde. Mm-hmm. soit amul caaj doo dem nangul le président Diouf par exemple il s'exprimait très bien en français mais il ne savait pas écrire. Ouais. nangul Ousmane Tanor savait vraiment écrire le français mais il ne savait pas s'exprimer. -hmm. <laughs> donc ku nekk ak yalla mhm. euh, donc ci li ma jàng. Mhm. ma ma ma ci par exemple le di ñaan yàlla képp ku ñëw ci man yàlla na aajam faju mhm xam-xam di di ifaadatika min ko ileeka loo xamante ne chaque jour da nga ciy gën a dolleeku mhm. même yow par exemple bu ñu toogoon léegi-léegi di waxtaan da nga may dolli ma lay dolli mhm. donc euh, ci jàng la ñu nekk tous les jours tous les jours tous les jours donc ce qui veut dire que su ma la nee rek euh, xam-xam bi dafa dafa dafa àgg foo xamante ne man xeeb naa bopp parce que xeeb naa parce que man je suis des des des docteurs mhm. je prends par exemple un cas ce matin, rien que ce matin. Un docteur qui se dit docteur dans un hôpital, un grand hôpital de Dakar, euh, une patient de diabète. Mhm. Alors qu'au début, euh, le patient est venu, dem ci diallo mu fait mo diabète Il il laaj parfois est-on fameux docteur est-on fameux docteur cest que docteur bi mënul woon faj jabet bi. waaw moo doon laaj patient et ton fameux docteur Diallo te yow tey faj nga jabet bi te moom faju ko résultat nee na ko léegi wér naa moom sax moo def glycémie bi ultraveineuse mu xam ne kooku wér na mu defaat jusqu'à trois fois. d'accord xam nga kooku gàccal d'accord il y avait un grand monsieur aussi. Mm-hmm. qui est dans un dans un grand centre bokk. Mm-hmm. fi ñuy defee ay analyses. Mm-hmm. Hmm. dafa dafa bañoon tradipraticien hmm. déjà man je dis tradipraticien entre guillemets parce que bu dee tradipraticien Sénégal hmm. mais li ñuy wax tradipraticien moi je suis pas ces gens là parce que man douma ma awma pétaw awma allué voilà légui lan mooy tradipraticien bala ngay génn bok son don defal defal définition tradipraticien lan la tradipraticien c'est quelqu'un qui qui soigne à partir de la plante à partir de la plante à partir de la plante d'accord légui nak ñu gissé ko comme une connaissance qui n'est pas modernisée. ok mais les traditions au Sénégal dañ maraboutage. maraboutage madame fait quoi. waouh bon. c'est fait maraboutage beaucoup parce que gis nga ñuy def petaaw te ñu ay sëriñ nga ay série di def ñu ay waaw <laughs> euh, am bu bu par exemple série. waaw d'accord bon mais euh, day gis kat la donc ce qui veut dire que du forcément rek moy set kat wala kat moy serigne c'est pas forcé ça d'accord serigne deug sax li ñuy wax serigne au Sénégal au fait c'est pas ça serigne moy ko xamante da koy xol mu fàttali la yàlla loolu mooy sëriñ d'accord serigne bo jàkkaarloo ak mom sax sañoo ko né defal ma li saxaar d'accord bo demoon ci serigne deug serigne Muntaxa par exemple sañoo ko ne defal ma li saxaar d'accord da ngay tallal sa wax mu ñaan mu ñaanal la d'accord serigne deug deug deug du am temps sax nelaw guddi bay li d'accord te sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg nañ ne yonent bi sallallahu alayhi nee nag képp kuy seet fenkat nga boo waxee dëgg boo waxal dëgg yëpp fenkat nga d'accord te nee nañ la boo demee boo boo demee ci nit ne ko seetal ma boo jullee 40 jours yàlla du nangu julli gi léegi ana sëriñ ak yàq diina jàngu d'accord xam nga donc c'est pas là du sëriñ léegi li ñuy wax ne léegi sëriñ nag mooy asraar kuy ñaan di bind ay saafara wala nga ñëw ne ko dama kul ak sama jabar wala dama kul ak sama jëkkër wala dama bëgg liggéey wala nangam nangam wala je veux dama bëgg fétiché diw kooku du sëriñ kooku bu xaaba la bu xaaba la comprendre nga d'accord donc marabout c'est quelqu'un qui te rappelle de Dieu d'accord c'est ça mais maintenant on a gaspillé ce nom là d'accord et tout le monde maintenant est marabout parce que les gens sont paresseux bëgg lu yomb ok boo jàngee alif rek nga tok fe di bind di di fen d'accord te boo mënee par exemple fenu seet yi amna ñent wax yo xamanteni koko wax day nal mën nga gis lo yaakar mu tass bu dé gor ñu da nga am faru rab euh, euh, coro rab bu dé jigen ñu da nga am faru rab <laughs> bo amé aaji boko ko waxee nit aaju bi du faju mais ça c'est tout le monde lu dugg sa lox day dem mais c'est tout le monde mon cher t'as pas un salaire de 3 millions ouais. donc tu veux vivre au-delà de 100 000 par jour tu peux pas avoir un salaire de 300 000

di marabouté moy marabouté muy dégg amuman par exemple dama jang asrar la ñëk jang voilà, asrar la ñëk jang ci asrar bobu la bëgg ñëw ak yow jang asrar man dama doon ñaan wa légui dama bëgg ñëpp même au gabon ñëpp asrar lañ ma xamé d'accord mais ma tok ben bëss né li il faut que ma bayiko mais yow ci asrar tant nga ñëw ci man nga fay ma 1 million nga ñaanal ma wa d'accord léegi si asraar boobu dama gis science mystique du Coran mhm. La science mystique du Coran science mystique du Coran science mystique du Coran science mystique du Coran c'est Asrar, c'est même pas science mystique du Coran Asrar, xam-xamu baatin la. xam-xamul baatin. ci yàlla la jëm. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. ci tuur yi. ci aay yi. ci tuur yi ci aay yi yàlla boo gis am na raw xaanam aay alquran boo gis. am na raw xaanam même boo ne qul huwa allahu ahad raw bi taxaw na. boo ne allahu raw dafa am. latif raw dafa am. léegi nit ñi par exemple dañuy jël benn tuur yàlla di ko wérd ba am ci par exemple istijaab. ñu toog rek ñu ne sëriñ lañ xam nga par exemple c'est très facile nga sol sa grand boubou def sa mbaxana yor sa kurus. mun mhm. nga benn ay alxuraan rek wala benn waay jox na la benn secret tuur yàlla. Mhm. bi ngay wér di nga foog ne sëriñ nga c'est pas possible. ñun tooroor yi par exemple dañuy naan tooroor sa tampi tan xoccat alluwal. tooroor sa tampi xoccat alluwal tooroor ñun ñun suñu par exemple suñu ethnie bi ñun les tooroor la. su ngeen sonnee rek tooroor bu sonn rek jël alluwa ne maanaam su ngeen tooroor bi daal su demee ba nga xam ne yoratul dara si lay jël alluwa bi ne sëriñ rek ko dum tagi mbi doon tooroor sa tampi tan xoccat alluwa c'est la paresse c'est comme mbër yi ku ci paree bëre rek nekkaat euh, bileejo nu ñu koy waxee ci olof bileejo waaw maanaam mbër yi góor yi ku ci paree bëre nga nekkaat euh, bu xaaba

Euh, sëriñ la boo xamante ne ñëpp xam nañ daaw loon jàngale xam-xam man def ma buggoon ne ma xam-xam boo tudd tuuram rek jox naa la ko euh, amul xaj ak seen heure boo ñëw sama kër aussi da ngay dugg xam-xam boo boo soxla dama la koy jox d'accord soo ne umu Moussa mu jox la soo ne asaabu Moussa mu jox la soo ne euh, soo ne soo ne kii tabdil mu jox la sa dem na ba may ma doomam d'accord te ñëpp xam nañ ne góor ak jigéen bi ñu gisee këram. d'accord man bi ma may doom lëttu mais sax lëtt na ko si kër gi. te dajale naa dëkk bi ci këram. donc sëriñ la boo xamante ne moo ma yaatal moo ma joxoon lépp sax. bewloo ma nag aussi. d'accord voilà. tey docteur gis nañ la nga étudier lu toll si juróom-ñetti ci biir jàng boobu ñu ngi ci gis benn euh, tur boo xamante ni ñu ngi koy wax pharmacopée tey lan mooy définition pharmacopée ak pour pourquoi pharmacopée ak ban formation pharmacopée de formation. Pharmacopée, c'est comme dire pharmacie. C'est comme un magasin pharmacie. de vente de produits. Ouais. man jàngum pharmacopée Je plante la science médicinale la la naturopathie. là j'appelle ça de la naturopathie. la naturopathie. parce que le mot tradipraticien franchement je veux pas moi je suis pas traditionnel. d'accord. je ne suis pas un praticien traditionnel je suis un praticien moderne. un praticien moderne. voilà. d'accord donc appelez-moi peut-être modernicien, je préfère que tradit praticien. Il faut que les Blancs arrêtent. Les Blancs arrêtent Il faut que les Blancs arrêtent. On n'a pas besoin de vous. Les Blancs On n'a pas besoin que vous nous indiquiez la route. Les Blancs qui ont inventé ce mot tradit praticien, moi je trouve ça dégueulasse. Tradit praticien. C'est quoi tradit praticien Ça a quel sens Et vous, vous les Blancs, vous avez fait quoi Donnez-nous une solution contre le coronavirus, donnez-nous une solution contre le diabète, donnez-nous une solution contre l'hépatite B, donnez-nous une solution contre au minimum la colopathie qui est facile à soigner, que vous êtes incapable de traiter, que vous appelez régime à vie. Donnez-nous une solution contre les hémorroïdes, donnez-nous une solution contre les arthroses, vous ne connaissez même pas les issues. Alors que nous, on est là, on soigne. Arrêtez les blancs, on en a marre de vous. Pourquoi nous, nous, nous, nous je ne sais pas pourquoi vous, vous, vous, nous prenez comme, je sais pas, c'est quoi Vous pouvez nous diriger, vous ne connaissez même pas le prophète Mohammed wasallam Vous ne connaissez même pas un verset coranique, vous ne connaissez même pas les heures de prière. Vous n'êtes pas de taille à vous mesurer à nous. Ce n'est pas possible. Respectez nos connaissances. Mais docteur, Je blanc contre ça. docteur taille blanc le prophète Mohamed sallallahu alaihi wasallam alors que taille, c'est une médecine moderne Avec médecine traditionnelle donc il y a deux choses vous, travaillez à travers les plantes. Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre la médecine moderne et la médecine avec les plantes Toutes les maladies que je viens d'évoquer, je les traite. Eux, ils sont incapables. C'est eux les incapables parmi les capables. Mais il faut ma traitement. Vous les avez appris où J'ai appris, j'ai appris. Enfin, où Eux, je ne leur demande pas là où ils ont appris. Je ne crois pas le diplôme. Mais aujourd'hui, est-ce que les Sénégalais qui vous regardent, qui font confiance, ne veulent pas savoir Mais là, où on apprend. Parce que Même, même ces blancs qui appellent traduit praticiens, là, chez eux, il y, a la, science euh, médicinale, il y a la médecine, euh, il y a la plante, ils ont des, champs. Ici au Sénégal, il y en a. Il y en a là à Moura Enda. Ou bien nous, on est dupes, quoi, on est nés bêtes, quoi. Il n'y a que ce que les Blancs nous ont mis dans, inculqué, nous ont mis dans la tête. Il n'y a que ça qu'on apprend, quoi. Et puis, il faut les suivre, quoi. Ces, ces Blancs-là pour être, pour qu'on t'appelle intellectuel. Mon œil. Donc, les grands marabouts de ces pays-là ne sont pas des intellectuels, quoi. Ne sont pas des hommes civilisés, quoi. Mais être un marabout et être un médecin, c'est différent. Je sais très bien. Ouais. Je le sais très bien. Ouais. C'est comme eux, être franc-maçon et être médecin, c'est différent. S'ils veulent la loyauté ou bien ils veulent être président de la République, j'essaie là où ils passent, ils passent par la franc-maçonnerie. Ils, des choses. Aujourd'hui, c'est quoi la franc-maçonnerie C'est vous qui l'avez évoqué. Mais pourquoi vous l'avez évoqué Parce que ça boom dans le monde. Hein. On n'est pas bête quand même. On est vous évoquez quelque chose dont on, est cultivé, on est cultivé, on est cultivé. que ce n'est pas l'objectif de mon émission. D'accord. Je ne veux pas prendre mes minutes à parler de ces attardés, moi je les appelle. D'accord.